ñu ngi am mbégte dalal la monsieur Omar Sow conseiller spécial bu président de la république nekk itam responsable politique ca Yeumbeul Sud euh, monsieur Sow ñu ngi lay nuyu am mbégte dalal la. waaw maa ngi leen di fay vraiment di leen euh, ziare ci weer koor gi di baalu Sénégalais yëpp ak di baal aussi Sénégalais yi ak di wax yàlla nañu yàlla boole bal te koor gi bañ doon suñu koor mu jël te yàlla nangu ñu suñu jàmm yàlla jéggal ñu suñu bakkaar te yërëmal ñu suñu woy dawle yi alors wàllu politique la ñuy waxtaanee dooree ko ca yëmbal sud bi ngay militer euh, foofu dafa mel ni euh, jubo moom amu fa donte ay mission de remobilisation ñoom seen amoon na fa euh, mais déggo moom dese naa am diggante responsable yi surtout nag yow ak ministre Amadou ot lan mooy seen problème yëmbal après. xam nga soxna si nu ma ko waxee ci kàllaamay français léegi laa la koy wax man ak Amadou. problème bu ñu am mooy problème politique parce que dañoo nekk ci parti bu tudd alliance pour la république muy APR parti APR bi nag euh, ñu sos ko depuis 2009 ñu nekk ay ndaw gëm projet bu tudd Macky Sall projet boobu ñu ànd ak moom ba tey 2022 yàlla def nag moom mu fekk si juge ñu nommé ko ministre ñi yéene ko ci lool vraiment mais bu mu ñëwee ba léegi dafa yaakaar ne position ministre mooy dama war a noot nit ñi ci ab parti dama war a récupérer li Macky la yor ci biir commune bi ci ñenn nit ñi Macky Sall ñi sonn ñi wala ñu mënta jotee ci Macky Sall man ma jote ñoom nax leen tëj leen tënk leen. tënk boobu nag la man Omar Sow ak ñeneen ñoo xamante ni tey ay responsable lañ ku mel ni Mamba Diakhoumpa ku mel ni Khady Gaye Lani ñi ngi ay conseil municipal ñun ñi ngi fii ci parti ñooñu tamit ne loolu du loo xamante ne day mën a nekk parce que tamit suñu nawle la parce que tamit euh, buñ ko dénkee taxul ne moom luñ ko dénk ministère lañ ko dénk non ko dénk ko parti parti bi day ñëw mu wax ak nit ñi ñuy waxtaan ak moom te problème mooy bu mu ñëwee dafa am lu jafe ci ci ci département bi bu ngeen xoolee département Casamance fépp am liste parallèle sauf Yeumbeul Sud mais pourtant dañoo ñàkk. est-ce que kon jàppale ngeen ko ci élection jàppale nañ ko ci élection ñi ñàkk. est-ce que du ànd nañ ci kaw fekk xol yi ñoo àndul fekk am na appareil politique boo xam ne moom da koo teg ci suuf fekk àndul kolewul. yow indil tontu moo tax ngeen. ñàkk loolu laay wax xam nga loolu laa wax. Hmm. léegi man. lan nga jàpp ne tax ngeen ñàkk yëmbal ci kanamu Bara Gaye jàppale mooy moom lu mu jàppale mooy appareil politique bi parce que dafa am appareil politique bu tudd APR mais moom dafa am appareil politique boppam boo xamante ne moom ci boppam dafa am loo xam da koo loo xamante ne da koy da koy liggéey euh, mënu xam lu ko tëddee sa famille peut-être ses amis d'enfance wala ñoo xamante ne jàppale ne moom ñoo xamante ne peut-être ñu ngi woon ci APR yàgg nañ ci lool peut-être amuñu amatuñu yenn ngor pour muñ xiif parce que yombut amatuñu yenn ngor yi pour téye téye seen bopp mu xiifal leen jàpp leen di leen di leen di leen di leen diri di dakk seen bu buum seen baab di leen diri léegi nag ñooñu duñ ko wax dëgg ñooñu duñ ko defal liggéey bi nu mu waree parce que ministre la amul temps pour wàcc terrain bi il fait beaucoup faisait beaucoup d'actions mais peut-être est-ce que action yooyu daan na jotee ci population bi est-ce que relais yooyu mu amoon sur le terrain est-ce que baaxoon léegi comme ñàkk nañ nag war na xam ne relais yooyu baaxuñu relais yooyu amatuñ amuñ njëriñ mais la mu def mooy jëlaat ñooñu noonu jëlaat ñooñu noonu gën leen a doole laat est-ce que tu comprends taxawaat taxawal loo xam ne ci biir commune bi lu tudd makis ak ak ak xottis ñoo xam ne dañuy taxaw ci ay réunion dañuy ne ñoom duñu ay makis ay xottis lañu. donc c'est moom dafa xaar ñaar foofu véritable ci commune bi xa affaire makis ak xottis moo fa am. léegi nag ñun ñu jàpp ñun ñu jàpp wax dëgg yàlla xanaa nit boo ñëwee fekk kër jàmbur borom kër gi yaatal dénk la njabootam wala am waroo cee am waroo war warulaa gën a gore. da nga war a jël njabootam yëpp. nga est-ce que yéen tam du Amadou moo leen neexul rek ngeen beru yéen tam. soxna si man musuma man laa personne de Amadou Hott m'intéresse peu est-ce que vous comprenez m'importe peu man du ma nit kuy individualiser débat bi la preuve en est man bëggoon naa nekk maire mais buñ ko buñ ko tabee. dama dama ànd ak moom. tax man laaj la sànq est-ce que jàppale ngeen ko man de wax dëgg yàlla sama trail bàmmeel laay hmm. laay tiim léegi laa ndogu. campagne nga comme bu doon yow yaay candidat. dama leen laaj ko moom. wala ngeen dem dugg ci archive yi ngeen dem xool campagne naa nekk naa garde corps am nekk naa léppam protégé naa ko lu ne defal naa ko ci commune bi lu ne defal naa ko ci commune bi pour mu gagner parce que man gëw ma gëw lu mu gëm projet de projet laa gëm muy alliance pour la république kenn laa gëm muy Macky Sall bien sûr en politique beneen bi mooy comme que joxe na ay directives directives yooyu dama ko dama ko motalee ba mu mot sëkk parce que génère yéen a am léegi nag bu ñu jógee ci loolu ñu ñàkk ci élection lu mot junni xot Balla Gaye gañe ñu man li may wax ak ñeneen nañu nañ taxaw def bilan lu tax ñu ñàkk. depuis local yi toogu leen càmbar lu tax ngeen. ñàkk amul bilan amul lu ñu def. dañoo ñooñu loo ñu taxoon ñu ñàkk projet boobu lañ continuer waa pour jëm ci législative bi pour mën a nax président. kon ñoom dañu bëgg a jiitewaat euh, liste yi pour législative. effectivement équipe bi pertoon local yi man xaw ma jiite wala ñàkk jiite mais ci yoonu jiite la ñu nekk ñoom. lan moo wax na ci yoonu jiite la parce que la preuve parrainage dafa daw këf ko. nekk euh, jël ko. mais parrainage yi président moo dañu désigné noonu. ba léegi dégg dégguma yéen journaliste yi jot ngeen notu APR bu ne désigné nañ ko kii parrainage. Ah, gis nañ communiqué dañu désigné ay responsables. est-ce que gis ngeen ci turam moom man de gisuguma ko ci parti laa nekk wala yéen wax ma bu nekkee. moom moo dem njëkkante. non njëkkante la affaire bi affaire APR njëkkante la gars yi dañuy njëkkante teg xel comprendre nga mais c'est c'est de bonne guerre mais bu loolu bu amee woowal njaboot gi yëpp mais man daf maa beddi nekk ci lu mu nekk est-ce que tu comprends. pour wane ne moom mu ngi liggéey woote ay réunion woote ay ndogu def lu muy def woowu ma mais man nag sama ful ak sama fayda man liggéey lu may liggéey jël sama. est-ce que président Macky Sall yëg na li xew yëmbal. du ma ne yë na lépp mais am na lu mu ci jot a parce que yónni na gis nga tey am na émissaires yi ñëw pour ñu waxtaanee ci département parce que c'est pas yëmbal kese département bi yëpp am problème. comprendre voilà léegi nag man lu ma intéressé man c'est la commune de Yeumbeul Sud mooy c'est pas sa personne qui m'intéresse ma gëm te gëm mooy na nañu nañu nañu teg affaire ci table bi ñu waxtaanee ko réew dañ koy waxtaanee mais parti dañ koy waxtaanee waaw mais président Macky Sall moom euh, bi mu saytoo local yi xam na ne am na foo xam ne gars yi kontaanuñu mu yónni ay mission de remobilisation docteur Cheikh Kanté moo jiite délégation bi pour Kër ma Massar mais euh, juboole bi diggante yow ak Amadou Hott dafa mel nii ci yow la dëgëree. non mun ci man la dëgëree xam lu tax. parce que condition yi may laaj pour ñi pour ñi pour pour ñi ñi mën a avancer condition yi lañ tegul. yenn condition nga teg li ma mooy nañu delluwaat fondement les fondamentaux yoo xamante ne mooy mooy lu base alliance pour la république. mooy lan mooy lan mooy lu tax parti bi sosu. parti bi dafa sosu pour mun a reconquérir élection waruñoo jël benn famille wala benn clan pour ñuy jiite dara est-ce que comprends dañoo war a teg xool def composition xool nit ku ne foo nekk foo war a taxawee ñu jox la sa cër loolu moo jiitu. yow Madou place bi ñu jox Amadou rek nga bëggoon Madou Euh, soxna si man euh, wax dëgg yàlla xam-xam bu amoon am am am aw ma ko moom ëpp xam-xam. Mm-hmm. déglu ma ministère bu mu yor mënu ma koo jiite. xam nga man man nit kuy wax lu ma gëmut. ci politique laay wax man. politique Kër Massar euh, yëmbal dama ne man maa ko raw ci politique. waaw yëmbal laay wax man waxuma ministère dama ne yëmbal responsabilité yam fa yor est que du yow moom nga bëggoon a yor. non daf ko këf xamul tax. Mm. parce que dafa jaay nit ñi ne dafa yor alal. dafa jaay ni président Macky Sall moo ko désigné. kii local yi euh, dama ne local yi daf ko daf ko këf déglu ma. nu mu demee xam ah. nu mu demee. dafa woon ne président dafa bëgg. Hmm. dem déclarer créer ay nit ñooñu porter candidature am. am na ñoo xam ne daf daf daf leen. xanaa président nag basé wul nag ci loolu nag. président xanaa def na ay ay renseignements. non je vais te dama lay wax. président woo ma ma ñëw ne ma sama président man njabootam la njabootam laa mooy doomam la hmm. mais xëccoo ma nekk ci cabinet mais xëccoo ak ministre am. xam nga ne président man la mën a man la mën a xañ jox keneen parce que man maa gën a bokk ak moom. Ah, loolu jàpp demoon ci local yow da ngay gagné. yàlla moo xam koy gagné. mais sa bopp mais nag mais nag gëm naa ne dañ doon gagné. wala écart de voix bi du am. du toll nii bi am am xam nga tax mm. parce que poudrage la moo fi am ñiy naxante. di mu yor yor ay relais yoo xamante ne dañoo bew dañoo dañoo nga baal ma ci terme bi wegguñu population bi faaluñu population bi yegguñ ci ñoom ñoo xamante ne yow boo leen amee comme relais fekk du ñu wax ak seen dëkkandoo ñoom ñooy seen relais ñooñu mënuñoo gagné élection léegi ñooñu nag bu ñu leen jëlaatee ñu ne nañ ñoo ñooñu jëlaat diriger waat ne pour ñu dem législative est-ce que ne yaakaar ne dóor yi di gën a dóor man nag damay wax parce que avant local lii laa waxoon li may wax ni laa waxoon avant les local ñi ñi jàpp ma ñi jàpp ne man ab géewul laa wala damaa bëri wax damay wax rek pour wax parce que je suis un un internet indigné te man soxna si maa ngi sant yàlla maa ngi ci wetu président am na salaire bu baax macha allah ak opérateur la parce que Gabon laa nekk pendant 12 ans yor sama activité di liggéey donc sama bakkan sama sama bakkan taxul may wax man amoo problème mais dama wax ne am na njabootu président yi fi nekk ñoo xam ne ñu ngi fi depuis dekkal ngor sonn ci parti bi am compétence am xam-xam ñooñu nañ leen teg seen place te jàppale leen loolu laay wax nañ nañ recomposition politique dafa war a am force dañoo war a jël ñoo xamante ne tey yàgg nañ ci parti wala nekk nañ fi am nañ xam-xam même ñiy door ñëw tamit ñu xool leen ñu jox leen. seen président nga koy wax ndax ñoom tànn nañu seen bopp ña fa nekk. non xam nga la lay wax président mën na la tànn nga nekk ministre am mais boo ko forcé pour nekk responsable au niveau communal. bu yàgg président day toog di la seetaan mais nit bu la président tànnee benn yoon nga dem nga lajj. war nga am ngoru delloo président li mu moom. mooy parti bu wéyee da jàpp ne local euh, yi da ngeen di ñàkk kon mbaa cohabitation bi leen opposition bi di di du doon dëgg. soxna si ñàkk bi yëmbal si taxul ñu ñàkk département de Kër Massar. parce que affaire bi c' ce plus une affaire communale c' affaire de département xob yëpp département parce que démocratie lañ suñu parti la am ba su président bëggee siffler fenn Dakar dina ko siffler mais cohabitation du am parce que man li ma mere mere amut ot président bu ne euh, penku baa ngi nii euh, nodd naa jàkka jaa ngi damay damay topp ci ginnaaw loolu mooy wax ci donc waxaluma pour sama bopp waxaluma na dama wax ne pour parti bi mën a am dynamique bu bees pour parti bi mën a ubbeeku pour parti bi gën a mën a yàgg parce que nag am na benn affaire bu am am na ñoo xam ne dañoo yaakaar ne Macky Sall dafa dem il se prépare après Macky ah, bokk parce que dafa dañoo créer tendance au niveau de Yeumbeul Sud les maquistes et les hotistes léegi am na booy yoo ne xam nañu lay booy wax ñoom ñun xamuñ koy Macky Sall ñun Amadou Hott lañ gëm te pourtant Amadou Hott Macky Sall moo ko jox li mu yor donc loolu ma xew parce que ñoom jàpp jàpp nañ ne ñoom dañoo war a nekk tey remplacer Macky Sall te ñun suñu candidat 2024 Macky Sall la tudd yow ku la wax Macky day def troisième mandat. amul troisième mandat man damaa gëm ne deux fois cinq ans wax benn cinq ans day toogaat. moo tax nag ku ci ne man damay ànd ak moom ci dama ne. Euh, euh, du du mooy décider de. Hmm. conseil constitutionnel mooy décider. te moo amul dañ da koy dem amul muy bañ. day déposer dañ koy déposer jox ko day dem sénégalais ñooy décider ndax dina dina toog wala du toog loolu muy wax ji il faut respecter les sénégalais xam nga may problème considé daal yéen APR su ma la déggee moom yéen yéen a ngi ci 2024. dama ne man Macky Sall mooy sama candidat en 2024. loolu lay wax yow rek wala waa APR. man dama ne man laa li ma li ma wax man la engagé. Hmm. man Omar Sow man la engagé le reste nag mooy. am na ñoo xam dañoo jàpp ne président Macky Sall jeexal na dañuy ut seen i nitu bopp nit nag am nga droit wut say nitu bopp mais demal nga nga daara dem defal dem uti sa jàkka ju bees nga dem nodd mais bul fekk loo xamante ne Macky Sall ko moom nga ne ko créé ko di ko xeexee mooy ñoo xamante ne ñoo féete ak Macky Sall ñoo xamante ne ñoo ku féete ak ma jox la moyen ku ant ku naa ko rey naa ko naa ko naa ko rendi naa ko naa ko naa ko loolu moom mun a xew te loolu du ngeen ko wax président Macky Sall mu réglé xam nga président ñëpp. yow yaa ngi koy gis chaque jour du conseil spécial. non non dama leen conseil am laa. Hmm. waxuma la maa ngi koy mais am na loo xamante c'est c'est pas des combats de président am na loo xam c'est des combats ñun ñun ñoo koy. xeex ci seen bopp parce que c'est politique. parce que des combats politiques c'est des réponses politiques loolu foofu lañ toll loolu mooy wax ci parce que du minute bu ne rek dem ci président amul def na ma nii man melu ma noonu moom moo mel noonu moom mooy dem di clamer di wax président loo xam ne amul di wax président yoo xam ne information yoo xam ne ça n'existe pas loolu moo xew loolu mooy wax ci ñun nag lu ñu gëm mooy suñu parti bi jaayuñu ko lu ñu gëm mooy suñu président Macky Sall moom la àndal lu ñu gëm mooy APR deewul APR la ñuy protégé loolu la ñu am képp ko am agenda caché wala nga am say ambition boobu demal nga créer sa parti wala nga créer sa mouvement nga dem topp ci loolu loolu ñun loolu la ñu xam. jërëjëf Oumar Sow amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM tey yow conseil spécial président de la République nga responsable politique aussi Yeumbeul Sud. jërëjëf maa ngi leen sant maa ngi jégalu lépp lu amee lu fi man la. lu baax yëpp ya suñu borom la vraiment di baalu aussi auditeurs yëpp ak vraiment juste rek waxtaan la rewoon rek parce que tamit lii mooy dëkk ah. parce que ñii tamit ñii di wax ne APR amul démocratie yëpp dañuy wax wax lu leen neex donc lii mooy wane ne suñu parti nous sommes un parti fort nit ku ne am nga ci droit nekk ci wax li nga xalaat ci yar ak ci teggin te ci loolu lañ nekk di lancer waat un appel à tous les camarades à la remobilisation pour que pour que ñu jox président majorité